Sénégal moo war a tekkeeku ci bi mu jàpp bi mu nekk ci waaw Macky Sall nag français la candidat français français la léegi nag ñun li ñu bëgg mooy ñoom ñu xam ne Guy Marius Sagna dañ koy Macky Sall du nit kon donc daal yéen euh, Assane Diouf dañ koy wéyal xeex xeex non dañ koy wéyal toogaay bi ñu toog fii toogaay bi ñu toog fii li ko waral ah fii li des suñu dund yëpp dañ koy xeex ak Macky Sall ba keroog muy mémoire yi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo laaxu moo tax ñu toog fii pour seen yaay gis ne ñun ñoom mën nañ mën nañ ñun mënoon nañ dee à leur place ñoom dañoo génnoon comme ñun ñu génnee tey te mm-hmm. pourtant ñoom dee nañu te terewul ñun génnaat nañ tey te mënoon nañ dee pour wan leen ni ñoom du ñu gën a gore léegi nag suma xol ak suma xel ak suma xalaat suma naqar yëpp ñu ngi koy boole di naqarlu loolu di wax ne kenn rek moo leen rey muy président Macky Sall kenn rey wax Antoine Diome ne ko moom ñoom ñooy terroriste yi ñoom et que ñoom ragal loo mënuñu ragal loo mënuñu xoxatal ñoom ñoo complété ñoo jabaram ñu ñi xam nañ ko de la def seen yoo xam ne début mel ni du kenn ay muusa donc yooyu yëpp ni ko Sénégalais xam mais li ëpp solo ci wax pour ñu xam ni on n'a pas peur de on n'a pas peur wu ñu armée ñun lijjantiwuñ la na génnee char de combat adduna bi yëpp ñun pare pour Sénégal Sonko waxoon naa la ko ne suñu bakkan lañ ci def te li tax ñu topp ko su nekkatul ci moom ñu teg ko fële ut keneen tegaat ci mais ETS ñun ñoo ko moom mais malheureusement policiers yi nax nañ dem nañ dem ba dem topp leen mais ma ma déggaloon jug foofu léegi nag tey manifestation yéen bi ngeen génn seen kër ngeen génn pour manifester ñun dañoo woote manifestation pacifique mais xanaa am nañ droit toog obélisque sax xanaa ba 19 wala boog 17 wala waree ko n'est-ce pas amul sànni xeer amul di dem fenn di dara mais am nañ droit wane suñu mécontentement indi ñëw ci Sénégal li muy doxee du dina démissionné kon gars yi ñu yegg suuf bi. démissionne gis nga Karim. waaw Baye Fall man maa ko ñëw gis nga jëmm ji. gars yi dañu war a gis ñëpp joxoon napp dañoo war a wut ay pancarte. Karim. ay Karim dañoo war a wut ay pancarte dem si Macky Sall dégage. c'est ça qu'on doit faire. ñu doyal population ñu ko faral ñoo doyal. ñu ko faral ñoo doyal. on dañoo warul ay pancarte. Macky Sall ñu ko faral ñoo doyal ñu ko faral ñoo doyal. ñu ko faral ñoo doyal. ñu ko faral Abdou Karim ñu ko faral ñoo doyal ñu ko faral ñoo doyal ñu ko faral ñoo doyal. gars ngir yàlla toog leen. gars eh eh eh waaw dañ toog nañ toog ku ma toog nañ toog. deux sept. et consort. et tous les autres otages aussi. waaw benn objectif. bu leen kenn ñëw rek ñu leen yóbbu leen benn bopp. xam ngeen ni wax ñu li ñu xeex Sénégal. te xam ngeen wax am ngeen confiance ci ñun. bu ñu naan dañ leen def dara nañ ko defandoo ñun ñëpp. nga xam ne fitna du am kenn du ko kenn. ay balu fital ñu dee ñoo xam auto police moo leen fël ñu dee mmh. ñoom seen yaay ñu ngi xool du Sonko kese mooy problème problème Sénégal Macky Sall Macky Sall moo war a démission am nañ droit ñun en tant que Sénégal droit constitutionnel dañu am droit manifester donc ils ont tout fait ba privé ñu ñu ngi suñu droit de manifester. dañ ko forcé ñu def parce que peuple bi moom moom moo yor pouvoir. waay Macky Sall moom moo yor doole doole bi ñun ñoo ko yor. waay loolu dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg la. léegi nag man damay wax ma ne ne serait-ce que pour la mémoire des des gens yoo xam ne dañoo dee quoi ndax Sénégal dañoo dee parce que dañoo génnoon ànd ak ñun. dëgg la xanaa mën nañu ko toogal fii benn quatre heures de temps wala cinq heures de temps quoi. comme on n'a pas pu yegg palais wala mënuñu yegg assemblée place de l'indépendance parce que risque bi peut-être wala am na gars yi dañuy gis ni sabotage la wala mooy loolu mais ñëw nañ fi lii kenn gënu dara gënu ko pacifique waaye kenn moo violence yi Macky Sall même les flics même policiers yi sont pas violents ñu ne toog faale wuñu sax li mu bëgg mooy ñun ñu reyante suñu biir te duñ ko def léegi nag dama bëgg képp koo xam mi ñuy seetaan soo mënee déplacé wu te ñëw fi ñu def ko pour la mémoire de ces gens qui sont morts ñu naqarlu ko toog fii nii ñu xam ne sénégalais yi toog nañ fii pour képp koo xam ne ñàkk na bakkanam parce que di réclamer la libération du Guy Marius Sagna de Clédor Sène de Assane Diop

Come on, come on, come on. sante te yëngatu naa sunu sante te yëngatu naa dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté sunu Sénégal sunu sante te yëngatu naa sunu sante te yëngatu naa dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté sunu Sénégal sunu sante te yëngatu naa société yëngatu na. nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal. sunu société yëngatu na. sunu société yëngatu na. nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal. sunu société yëngatu na. sunu société yëngatu na. nañu am fayda nañu am fayda nañu respecté sunu Sénégal.